salaamaaleykum ami téléspectateur mbégte kontante la am saa su nekk jàkkaarloog yéen tey ñu ñëw seet si maam Thierno Racine borom xam suuna xaaf mu nekk fii si Parcelles Assainies unité 13 ci côté hôpital Ma Abdou bi donc du ñu def lu dul nuyu ko sëñ bi ziar nañ la. Mm, maa ngi leen di fay di nuyu téléspectateur télé Sénégal yëpp di nuyu waa réew mi di nuyu borom xam-xam yi dikkee réew mi ak ñi jiite réew mi di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. defal ko jullit ñëpp barke yonent bi sallallahu alayhi waa yow ñu gën la xam ci wàllum paj ñu lay laaj kan mooy maam Thierno. waaw Thierno Racine mooy benn jaamu yàlla bu gëstu rek gëstu ci wàllu lasaraar gëstu ci tur yàlla gëstu ci lu bari loo xam ne luy jëriñ doomi aadama la ci wàllu baatin hmm, di Haalpulaar dëkk Fuuta kooku buñ doon tënk daal la ñu wax ne kooku mooy Thierno Racine. Mm. waaw gis nañ ni Fuuta moom xam-xam dafa wàcc macha allah lu leen yàlla jagleel la tey ñu lay laaj yan façon paj ngay faj. waaw euh, dinañ faj lu bëri lu jëm ci wàllu ubbeeku wàllu taxsin kaaraange koo xamante ni danga nekk ci bërëb di ñaan yàlla kaaraange comme léegi jamono li fi bëri euh, xeexante bi bëri na kiñaan gi bëri na yàqoo bi bëri na loolu yëpp danañ ci danañ ci yëngatu. danañ yëngatu it ci wàllu ubbeeku koo xamante ne da bëgg ubbeeku koo xam ne da nga nekk ci place bëgg fa yàgg bëgg fa nekk ba keroog nga fay jóge ak sa sago loolu yëpp danañ ci ñaan yàlla dana ñaan ñaan yàlla it ci euh, lu mel ni koo xamante ni jigéen buy sëy la munta am doom wala jigéen boo xam dafa toog lu yàgg amul borom kër loolu yëpp danañ ci ñaan yàlla danañ ndoxu siti danañ koy faj hémorroïde loolu yëpp danañ koy faj waaw loolu daal bokk na ci li ñuy yëngatu Thierno boo gisee li lëmba jamono mooy maraboutage lii di fajum tradipraticien daf fi bari ku jug ne sëriñ laa ku jug ne damay paj loolu est-ce que du leen yàqal ci seen liggéey dara. waaw dama doon damay faral di wax ne ndox moom fu mu doon taa ba léegi ku dem fekk fa tepp-tepp wala fekk fa boog lu man di ganaar euh, mara euh, marabu euh, tradipraticien yi kenn du weddi ne am na ndax balaa tubaab yi di ñëw suñu maam yi dafa am lu ñu doon jëfandikoo di ko fajoo. jamono boobu ba tey boo demee ci àll bi am na ñoo xam dañuy ëmb ba wasinte duñ dem hôpital te ci ci ci ci xam-xam bi nga xam ne suñu maam yi moom lañu fi bàyyi moom moom la ñu jëfandikoo jamono nag bu doxee ba nit ñi gis ne ah diwkat mu ngi ci nangam mu ngi ciy tedd ku nekk da nga ciy bëgg dugg waaye li ma wér ba wér mooy kenn ñemewut a wax ne sëriñ amut amul nag métier booy dem te dérapage amu ca soo demee hôpital am na ñuy piqûre te munuñ piqûre am na docteur yi woote na ay docteur lañ te munuñ am na ay sages-femmes yu woote ne ay sages-femmes lañ te munuñ loolu moom métier boo dem am na fa soo demee police am na fa boo demee gendre gendarmerie am na fa foo dem rek am na ñu baax am na ñu bon. maanaam dafa doy waar parce que ku jóg ku nekk day taafantaloo ni man sëriñ laa. waaw loolu laay wax dama ne parce que métier sëriñ dafa nekk loo xamante ni euh, métier la boo xam ne dafa yomb dugg parce que boo nee sëriñ la nit ñi munuñ lay weddi. waaye sàcc nënd ak semmiñ xaw ma xaw ma euh, sàcc xaw ma nënd ak semmiñ lay doon tëg neex benn yoon naqari benn yoon damay faral di wax ne koo nax benn yoon dootoo ko naqate te kooku boo moytul dana la yàqal téeméer yoo xam ne dañu waroon ñëw ci yow donc métier la boo xamante ne métier bu noobul la lu tax métier bu noobul la mooy soo ñaanalee nit yàlla ba yàlla faj aajom yow da nga yokk ngëm-ngëmam ci yàlla da nga yokk ngëm-ngëmam ci alquran waaye soo ko jaayee ji ko tappale keneen ñëw tappale ko boo moytul sax dafay wax ne lii nekk du dëgg kon maa ngi moytuloo sama mbokk yi ci loolu lépp lu ñuy def nañ ko def ci njub benn secret bu wér rek boo ko amee mun nga ci lekk sa wërsëg li may bañ mooy toog ci télé bi wala rajo bi mën naa lii mën naa le te loolu nga wax yëpp yàlla xam ne ni xëy na benn nga ci mën yi des yëpp da nga ko cee ñambaas waaye du dëgg te borom xam-xam bi dafa waxoon ne lu waaye fen ba jot ca su dëgg yi jot ca waaw waaw ci wàllum paj moom est-ce que yaa ngi gis ay résultats ci ña nga xam ne ñi ngi ñëw ci yow di am bëbët yow pour nga faj leen. loolu de yàlla doy na ma seede yàlla mi nga xam ne bés dina ñëw ñun ñëpp ñu fekk ci ko am na ñoo xam ne sax lañ ma waxoon ne bés booy def émission ci rajo wala télé nag ñu woo ñu témoigner ko euh, pour yow. ñooñu est-ce que du doon ñi la jege rek. déedéet yàlla xam ne ni ñooñu xaw ma leen sax mënu ma ne kër gi lañ dëkk barke alxuraan. am na ñoo xam ne bii billaahi wallaahi taalaay mun tey suñ doon ànd mënu ma la wax ne kër gii lañ dëkk yoruma sax seen numéro téléphone ndax man yàlla dimbali na ma ba nga xam ne ne client bu may ñaan loolu du ma yor sa numéro téléphone yow rek yaa may soxla woo ma waaye man du ma am ci yow soxla ndax àdduna moo toll foofu jamono moo toll foo xam ne léegi nit ñi wóolootuñ affaire u sëriñ ba tax koo ci woo tey suba mu foog ne dafa am loo soxla ci moom ñenn ñi sax dañuy wax ne aw ma itte du ma woo ma ne déedéet du ma woo daal moo may soxla woo ñu jëflante ci li nga bëgg su ma demee na ba gis ne yow mi borom kóllëre nga mun nañoo xaritoo ndax xaritoo fu nekk la ko yàlla di indi waaye am na ñoo xamante ni wallahi alazim woo nañ ma fi ñëw ba ci man nee ma dañu bëgg su sooy sooy defati émission nga wooñu pour ñu ñëw euh, seedeel la ma ne leen baax na waaye loolu bëgguma ko def parce que man lépp luy propagande bëgguma ko def man dama bëgg mu naturel rek képp koo xamante naa yàlla boole nañu danañ jëflante ku ñu yàlla boolewut mënuñoo jëflante ak yow te dañuy faral di ñaan yàlla képp koo xamante ni sa aaja narta faju yàlla bu yàlla indi ci ñun ndax buggu bugguñoo lekk loo xam ne lewut ñu. ci loolu yan façon faj ngay faj. Euh, dinaay ñaan ci wàllu ubbeeku wàllu ubbeeku danaa ciy ñaan loolu nag. ubbeeku maanaam. mooy fatxu mooy ubbeeku mooy ku bëgg a wërsëg wala kuy wut liggéey wala ku ubbeeku daal ku bëgg sa wërsëg gën a yaatu. mais loolu est-ce que du des fois nga am rab du la yàqal dara ci loolu. waaw loolu rab danay danay danay yàq waaye xam nga wërsëg moom dañ koy ñaan yàlla ndax wërsëg ci loxo yàlla rek la la ne dañ koy ñaan yàlla rek tey mun nga di fayeeku cinquante mille par weer nit ñaanal la ba ñu yokk sa salaire wala nga am liggéey bu gën liggéey boobu ndax yonente sallallahu alayhi la moo ñu waxoon ne ñaan yàlla amul lu munut ñaan yàlla amul lu munut te ñun ñi ciy dund gëmuñ lu dul ñaan yàlla. bugguñoo am sax leneen lu duut amee nañ ko ci ñaan yàlla ndax loolu lañ gëm dañu gëm ne ñaan yàlla amul lu munut donc képp koo xam ne ñëw nga am jafe yooyu mun nañ la ñaanal yàlla ci li ñu xam xam ne ñun nag ay jaam lañ dañuy ñaan yàlla mooy maye waaye gëm nañ ne yàlla du nangu du delloo mukk ñaan jaam bu ko yaakaar buñ ñaanee yàlla jaarale ko fañ ko war a jaarale gëm nañ ne yàlla ñuy may. incha allah ci wàllum wér gu yaram yan façon ñaan ngay ñaan. ci wàllu wér-gu-yaram lu mel ni ndoxu siti danañ koy faj lu mel ni comme ni ma la ko waxee sànq jigéen boo xam dafa tëw am doom bu ñu yàlla mais ndoxu siti lan moo ko indi parce que gis nañ ni dëkk bi yëpp ñëpp am ndoxu siti koo wax mu ne lan am naa ndoxu siti lan la loolu lan la ndoxu siti lekk yi nit ñuy lekk danañ indi ndoxu siti lu mel ni gerte jën bu ñuul diwtiir soow loolu yëpp danay ndoxu siti ne dafay indi ndoxu siti waaye dafay tax ndoxu siti bi agité ci sa ci sa yaram xam nga ndoxu siti mus naa sax dégg benn tradipraticien mu ne ku ndoxu siti feebaru baadoola la déedéet ndoxu siti képp ku ko amul da ngay ngaana soo gisee nit di ngaana ndoxu siti moo nekkut ci moom bu fekkee ne siti nekkut ci sa yaram da ngay ngaana léegi nag lekk yi ngay lekk mooy tax muy agité muy génn ci sa yaram lu mel ni soow wala jën bu ñuul wala gerte kemb yooyu dafay tax ndoxu siti bi dafay génn ci sa yaram waaye amul doomi aadama bu amul ndoxu siti ndax boo ko amul la da ngay ngaana te xam ngaana moo gën a garaaw ndoxu siti waaw léegi loolu moom danañ koy faj danañ fajit koo xamante ni comme ni ma la koy sànq jigéen boo xam ne dafay sëy te teewoo am doom su fekkee ne du fibrome bu avancé wala mu nekk kyste boo xam ne dafa avancer wala mu nekk fib euh, nu mu tuddi myome boo xam ne avancé loolu danañ koy faj bu fekkee nag ne fibrome bu avancé la loolu duñ ko mën a faj ndax lu opération rek moom moo ko mën a moom moo ko mën a dindi. beneen fa wàllum paj beneen wàllum faj comme bët ba ay bët yi lëndëm loolu tamit yàlla may nañ ci ay secret yoo xam ne danañ danañ koy faj. bët yu lëndëm maanaam nit ku gisatul. waaw nit ku koo xam ne dafa dem ba bëtam di lëndëm ba gisatul. loolu danañ koy faj. tële it danañ koy faj koo xam ne dafa tële te fekk ni judduwaale ko nag bu fekkee da koo judduwaale loolu mënuñ koy faj waaye bu fekkee ne da koo juddu judduwaale wu ko loolu am nañ ci ay secret yu wér yoo xamante ni ci alquran mun nañ koo faj. tële moom lan moo koy indi. a télé bëri na am na yoo xam ne feebar la rek wàllu deret la néew kàttan wàllu deret la xam nga. foo bu bëri. waaw ñu bëri dañuy wax loolu waaye déedéet foo bu bëri du indi du indi télé day ku gën a mun a foo te fekk ne du télé parce que góor yàlla moo bind ci moom ay sidit yu bëree bëri bëri bëri bëri waaye heure bu joteeg jigéen su jotee boppam rek benn sidit dafay dagg waaye ndox bu muy naan mooy tax sidit boobu di sax ñi xam garab. xam nga nit ak garab sorantiwut ñi xam garab bu ñu gëstoo dañu gis ne garab soo ko gasee da ngay gis ay reen yi reen yu sew yi na ci suuf reen yooyu dangay gis ne moom dafa téye garab gi waaye du ay reen yi principal ba nga xam ne reen yooyu même bu daggee bu yàlla ci tawaatee ci kawam rek reen yooyu dafay dafay ñëwaat nit tamit noonu la mel heure boo éjaculé ngeen ñu baal ma ci kàddu gi benn sidit dafay dagg waaye buy naan ndox nag sidit yooyu dafay dafay dafay dafay judduwaat léegi am na at yoo xam ne boo ko xasee am sidit bu dagg dootul ñëwaat loolu mooy waral nit di màgget parce que sidit di doon tendre yaramam nekkatu fa dooleem bi di jeex doole sidit euh, boo déggee doole rek la sidit mooy am doole léegi buy dagg nag te am na at yoo xam ne boo ko amee sidit yooyu dootul ñëwati même da ngay gis ne damm-damm am na âge yoo xam ne bu nit dammee pour nga faj ko euh, tabax ko bu mu wér péng dafay jafe parce que bi nga xamante ni moo war a nekk ci nit nga xam ne mooy delloo yax bi ba mu suure suurewaat liquide boobu am na âge boo xam ne bu ko nit amee dootul nekkati ci moom moo tax xale moo gën a neex a faj ka mag waaw parce xale dafa am li na ci yaramam loo xam ne mooy dimbali faj gi mag nag boo gisee neexatu faj li doon dimbali faj bi moo fa nekkatut Hmm? dëgg sunguf yooyu noonu ngay wax ak reen yooyu est-ce que du gàllankoor ñooñu nga xam ne dañuy ñëw du ut si euh, maanaam wér-gu-yaram si seen si seen ci seen si yaram ñun de yàlla suturaal nañu sax ne lépp lu ñuy faj bëriwul lu ñu ciy fajee reen ak sunguf alxuraan rek la ñu fajee ndax yàlla daf ñuy wax ci alxuraan ne maa faratnaa fil kitaabi min shay'in alxuraan bi lépp a ngi ci ah lépp a ngi ci amul dara lu nit di wut te fekk ne yàlla daf ko ci alxuraan xanaa nag ku ko xam ak ko xamut moo fi nekk ku ko gëstu xam ko ak ku ko gëstuut alxuraan euh, lépp a ngi ci donc li gën a bëri li ñuy faj ci alxuraan lañ koy faje yàlla dimbale nañ ci loolu waxuñ ko pour ndamu lañ koy wax ci buntu sant yàlla ngir yàlla dolli ñu waa nit ñi xamoo koo ci gis danaan laan man dama yàqamte tax na alxuraan am nañ ci dañ ci jot a dégg la nga xam ne dañ ne euh, du gaaw waaw du gaaw maanaam du gaaw tax na nit ñi dañuy dañuy dañuy jëli sunguf jëli reen pour seen mbir maanaam di gën a gaaw daal loolu expliqué ñu ci tuuti loolu de dañ ciy wax aouzu billahi mina sheytaani rajim képp kuy wax ne aouzu billahi mina sheytaani rajim képp kuy wax ne alxuraan gaawut na nga muslu ci seytaane loolu xelu seytaane la mm-hmm. yàlla dara gënu koo gaaw mm-hmm. xanaa nit ñi dañoo xamul ni sunguf ya grain yi sax alquran la lépp alxuraan la euh, alxuraan gaaw da dajewul ak ku xam mbuuti alxuraan waaye alxuraan moo gën a gaaw euh, xefa xippi alquran moo ko gën a gaaw te alquran lu mu def kenn dootu ko dindi dee rek waaye du lox moo koy dindi euh, sell moo jafe ñu bëri selluñ moo tax yàlla wuyootut lu bari yàlla nañ yàlla may sell sell ci la ngay lekk sell ci sa jëmm su fekkee li ngay lekk sellut sa jëmm sellut eh, alxuraan mun da gaaw ci yow parce que <laughs> mbir mi ci yow la beneen bi sànq wax naa ko sax ci benn waxtaan moo doon def ma ne maa ngi ñaan yàlla ku amut ñaanu waajuram yàlla bu ko yàlla booleeg man ndax nit ñi dañuy bëgg di dem di seeti sëriñ ba pare sàggane seen waajur yi ci kër ga surtout waajur bu jigéen bi ñu bëri ñu ngi dem di wuti wërsëg te xamuñ ne bu ñu tarbiyee woon seen yaay yàlla may leen wërsëg yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn waaye fa ñëw ci moom nekk dama bëgg man su ma amee may may mu ne ko sa yaay amaatee mu ne ko sa su ma amaatee mu ne ko sa yaay bu muy ñett yoon ñeenteel mu ne ko sa papa man de xaw ma kan waaye man su ma mayee sama yaay ñaari junne ci ëllëg sa dinaa am cinquante mille wala lu ko ëpp man loolu natt naa ko ci sama bopp kon maa ngi woo ñëpp nañu fonk seeni waajur surtout bu jigéen ba Hmm? surtout bu jigéen ma ndax loolu du sama wax waxu yonente sallallahu alayhi wasallam la yonente nag yàlla moo ñu wax du wax ci alquran nee ñu yonente du waxee ci bànneexu bakkanam lépp lu mu wax rek man yàlla maa ko wax te yàlla waxam deesu kay laam-laamee dëgg la ba tey ñu ngi ci wàllum paj mais gis nañ sëriñ ya nga xam ni euh, Thierno bu ñu defee lu baax am na ñi nga xam ne lu bon lañ ci jublu est-ce que tey Racine day jublu ci loolu noonu maanaam nit ñëw ne la liggéeyal ma diw wala defaral ma diw bon wala maanaam liggéey bu bon daal ce que tey Thierno da koy def ku ma nee dëddale de du ma dëddale jëkkër ak jabar dë jabar du ma leen dëddale. paragel waaw am na condition yi mooy waajur bi di ñëwee xamal ma far bi nu mu nekkee ndaw si moom mun naa leen dëddale te du ma ci am bàkkaar xam nga lu tax mhm. mooy waajur moo am baat ci doomam bu la ko mayut amoo ci benn sañ-sañ. mais tey waajur bi mën na ñëw wax ne la da nga bëgg nga dëddale ko ak doomu diw ak diw ak diw mais est-ce que moom leer na la ni moom li muy wax dëgg la. waaw bu dee dëgg rek dana am lu ma ci leer bu dee du dëgg it dana dana am lu ma ci leer ndax yàlla moo ñu waxoon ci alxuraan ne ñu bu leen nit dikkalee indil leen xibaar na ngeen ko càmbar ba pare am nañ ñu koy càmbaree ci suñuy façon yi bopp loo xam ne ci meeb yàlla yi la bokk danañ ko càmbar xool ko. waaye daal liñ dul déddale mooy ku ñëw ne déddaleel sama wujj beeg sama jëkkër loolu du ma ko def. waaw liggéey ba nga xam ne day téye nit na téye nit mooy maanaam. téye nit maanaam liggéeyal ma di wërsëgam bi mu am yéenew ma ko wala dara. déedéet loolu yëpp duñ ko def duñu duñu duñu duñu liggéey kenn pour muy jël alalam di ko jox nit te yàlla xam na ni am nañ ci ay secret yu wér waaye nag góor bu toppatoowut sa jabar ba sa jabar ñëw ci ñun nañu sama jëkkër kat mënumaa am ci moom dara. damaa bëgg nga defal ma mu ma mu di ma jox danañ ko def. loolu am na. ah keñ am na loo xam ne dañ koy bind jox ko jigéen mu wis ko ci kanamam boo seeg sa jëkkër loo ko mu jox la. Hmm. wallahi lazim alxuraan lépp ngi ci lépp te lépp alxuraan la kay bind rek nga wis ko sa kanam seeg sa jëkkër loo ko laaj jox la loolu am na. wàllum wàllum sëy maanaam nit ku jigéen ki ñëw ci yow ne damaa bëgg diw nga nga defaral ma ma sëy ak moom bu fekkee moom dem na ñaan lu fu nekk loolu baamtul est-ce que tey jii yow bu ñëwoon ci Thierno Racine loolu dina mën a antu. ah du ma ne dana mën a antu de mais am na ñuy ñëw fii muy antu kooku nag di ñëw xaw ma kan la mun na bañ a antu waaye am na ñuy ñëw fii moom mu ngi antu ndax euh, koo xamante ni dafa ñëw nee ñu dañu bëgg a seeg damaa bëgg a seeg diw dama bëgg nga ñaanal ma ci loolu jafewut loolu jafewut lu yomb la ci yàlla waaw lu yomb la ci yàlla. waaw yàlla moom dara jafewu ko buñ ko ñaanee rek mun na yomb lool te mu gaaw. Mm. ba tey mbokk téléspectateurs yi ñu ngi toujours ak Thierno Racine euh, marabu tradipraticien mais man nag damaa xaw a sob gis naa sa loxo nga téye benn béjjén bu ndaw mais lii moom béjjénu lan la. waaw soxna si lii béjjénu badum la moom la ñuy wax béjjénu badum béjjén la badum benn rab la bu nekk ci àll bi comme béy lay mel. waaw benn rab la benn rab ñeent tànk la bu nekk ci àll bi. comme béy lay mel waaye du béy moom la ñuy wax badum béjjén bi danañ ciy def gàllaaj goo xam ne nit ki da koy takk mu ñëw ci faaru ndeyjooram ci biir mu sol yéram teg ko ci béjjén bi képp ku ko am soo nekkee bitim réew wàllu këyit daf lay yomb te wàllu liggéey itam daf lay yomb maanaam pour nga am liggéey daf lay yomb te liggéey boo nekk boo amee compétence bi danga ci nekk njiit waxuma nag soo amul compétence wax dafay leer soo amee compétence xam nga tey mënoo nekk ci liggéey boo xam ne jànguloo amoo xam-xam mi nga bëgg cee nekk njiit yàlla du nangu loolu parce que boo nekkee njiit da yàq su fekkee ne am nga compétence bi da fa nekk njiit dégg nga waaw béjjén bi loolu lay jëriñ béjjénu badum la tudd képp koo xam ne yor nga ko ci wàllu këyit dana la yomb ci wàllu liggéey tamit dana la yomb te liggéey boo nekk mun nga cee nekk njiit da ngay dégg nit ñi di waxu jaaro jaaro yi léegi gis nga nu mu bëree ku nekk mu ngi gàddu jaaro naan jaaro waaye bi béjjén bii moo gën a doy jaaro yooyu gars yi di wax gars yi que duñ ko tricher sax bàyyi pox jaara gi ñëw ci béjjén jën bi nag xam naa ne moom gars yi mun nañ tricher loolu waaye doo doo doo doo ko gaaw dañoo sab de déedéet bii moom doo gaaw a gis parce que kii kii moom ay mbir la kii suñu mbirul mbir la ñun ñoo xam fu ñu ko jëlee euh, suñu mbir la daal. da ngeen koy xaatim daal am yu ngeen dugal ci biir ëw ko ëwee ko morceau bu xonk bën dagg fii lii dañ koy dagg mu ne mu def euh, pirax wirax buñ ko daggee daf ko daal de daal de mooy morceau bu xonk ëw ko ëwee ko waat morceau bu weex ñu def ci buum nit ki takk ko fii ci baatam mu ñëw ci faaru ndeyjooram waaw. yéen a koy ëw wala am na am na garab ya nga xam ne du ñu nangu euh, ëwkat yi ëw ko. yii njëkk yi moom ñun ñoo koy ëw bu xonk beeg bi ñun ñoo koy def waaye der bi da ngay dem ci ëwkat yi ñoom ñu ñoom ñu defaral la ko. Mm. am na solo am na solo ba tey ñu ñëw ci wàllum jaaro jaaro yooyu noonu gis nañ gars yi di ci def ay mbir yu kéemaane. am na am na na ñi nga xam sax jot nañ def ay démonstration ci loolu yow jaaro yooyu lan nga ci wax tey. jaaro yooyu wér na nag wax dëgg yàlla bu fekkee ne man ni ma amee secret bi noonu lañu amee secret bi jaaro yu wér la jaaro la yoo xamante ni kenn xam nga baatin dafa nekk loo xam ne mënuñ ko exposer ci télé. bu fekkoon lu ñu mun a exposer tele naa génnee ne la nii ak nii ak nii la. ay secret la ay secret la secret kenn du ko teg ci tele mm. sama sëriñ moo doon wax ne su mbóot génnee mu ne nekkatul mbóot. Mm. ray leen ko ndax nekkatul mbóot. mbóot mooy mbóot rek mooy lu lu nëbbu su génnee rek ñu rey ko gisoo mbóot foo ko gisee rey ko ah su ba ba paree nekk mbóot rek ñu ñu ñu ñu ñu rey ko kon secret boo ko génnee rek dee na loolu moo tax amuñu sañ-sañ pays bi may ñu sañ-sañ boo xam dañu génne ay secret weer ko ne bii nii ak nii waaye yàlla mooy suñu seede ay secret ngi fi ay secret yu wér yoo xam ne jullit ñi ñoo ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen ko bàyyil dégg nga te loolu jullit ñëpp yéene naa leen ci. yéene naa ñu jot ci loolu ñëw gi ñëw ci média di waxtaan dañoo bëgg julli ñi jëriñu rek tey tubaab yi ñu ngi ak seen doole ñun ñu ngi ak suñu doole waaye dañ koo bàyyi suñu jàppoon suñu doole rek danañ noot àdduna waaye bàyyi gi ñu bàyyi suñu doole gëm affaire intellectuelle tubaab yële nga xam ne amuñu diine amuñu kóllëre amuñu civisme loolu moo ñu yàqal suñu suñu suñu àdduna comme ni ko Thierno Racine waxee mi ngi woo ñëpp mais est-ce que tey am na ña xam dañuy toog seen coin duñu am maanaam financièrement nu ñu ñëwee ci yow pour faju est-ce que wecceeku tey garab gi nii wala béjjén bi euh, jafe na. déedéet ñun suñuy mbir jafewut yombut ndax yàlla moo ñu waxoon ci alxuraan mu ne bu leen jël sama aay yi di ko walteer xam nga loolu alxuraan la ñun mënuñ ci dara képp koo xam ne ñëw nga ci ñun te bëgg lu baax danañ jëflante ak yow ci loo xam ne lor du ci am. lor du ci am waaye nag lu baax yombut. waa lu baax yombul mais da ngeen ci jublu pour dimbale askan wi. waaw waaw tax na da ngeen war a wàññi prix yi. waaw déedéet prix amu ci xam nga prix marché la am xam nga marché ngay dem ñu ne lii nangam lay jar lii nangam lay jar yàlla yonente sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yàllaa ngi ci njortu jaam bi xam nga tey da ngay gis koo xamante ni bëgg na ñaan yàlla waaye gëmul ñaan yàlla mu ñëw ci sëriñ. yor deux cent mille ci poosam ne sëriñ bi dix mille franc laa mën xam nga naxul sëriñ bi yàlla lay naxanteel te yàlla kenn mun na naxanteeg moom yàlla fa wax ci alquran mu ne du ngeen am lu ngeen bëgg tànk joxewu leen li ngeen gën a bëgg yàlla lu mu yor li moom ci moom da kay jaay pas-pas la koy jaayee jaayewu ko alal de pas-pas la kay jaayee boo ñëwee ci sëriñ bi yow jàppal ne jëflantewoo ak sëriñ bi yàlla ngay jëflanteel bu jaree cinq cent mille def ko ci te bàyyi yàlla sa soxla. ci mu am ko ci kaw nga am ko. ku ko amut it ñëw te xam ne amut danañ la dimbali ngir yàlla. dëgg parce que booy seet dañ ne euh, maraboutage dafa am sëriñu VIP am sëriñu gétt am sëriñ ya nga xam ne mooy loolu tax na ñu bëri comme niñ koy waxee saa su nekk rek dañuy toog am seen immeuble tey paj mi da leen may lu ne nañ wax dëgg te yàlla ta koo ci gis danaan am naa immeuble am naa kër am naa oto te lépp ci paj mi la. waaw ñun comme yonente bi sallallahu mooy suñu sëriñ te yonente bi sallallahu alayhi yàlla moo ko waxoon ne abasa benn gumba la woon rek bu ñëwoon ci moom di wax ak moom mu sàggane gumba bi ay yahut ñëw di wax ak moom ay buuri yahut buggoon tuub di wax ak moom mu faratal leen ba bàyyi gumba bi yàlla di wax ak moom naan ko lu tax ngay sàggane gumba bi ndax ndax yahut yi kan moo la wax ne gumba bi du leen gën kon nag ñun foofu la ñuy teg suñu tànk am vi gëmuñu VIP li ñu gën mooy wala xat xaram naa banni aadama mooy yàlla moo teral doomi aadama VIP baatu tubaab la bugguñ ko sax dégg nit lu dul nekk ki ki gën a ragal ragal yàlla ku gën ca nit ñi mooy ku gën a ragal yàlla waaye bu fekkee ne VIP mooy oto bu rafet ak kër gu rafet gëmuñu ko ndax boo demee yoof gii dañ la woon ay bàmmeel yoo xamante ni seeni borom bu ñu la waxee ñaata la ñu bàyyi ci seen compte ñaata la ñuy étage la ñu bàyyi da nga naan déedéet ñii fii du seen place waaye fekk ne yàlla moom borom doole la. wala benn woykat nee na lu coow li bëri bari selaw ne ko ndiix wan na selaw googu nag ku ko bëgg xam da nga dem ci bàmmeel yi. te ñun ñëpp foofu la mujj amul ko fa lu lem donc képp ku ñëw danañ jëflante ak yow ngir yàlla jëflante ak yow ngir yàlla nag tekkiwul ne da ngay denc say junne yu bëri ñëw bëgg a wéccoog yàlla ci naxee mbaay léegi loolu duñ ko nangu képp ku ñëw dinañ jëflante ak yow ci ni ñu war a jëflante ak yow waaw. tey tey Thierno ce que tey buntu këram mi ngi fees wala ñin ñaa ngi koy woo wala moom peut-être euh, euh, nu mu tudd faj faj en ligne lay doon wala lan. yëpp danay am nit ñi dañ may woo danañ ñëw fii rang lépp dafay am sànq maa ngi ko waxtaan ak sama benn xarit mooy sama xarit bi toog maa ngi koy wax ne nit ñi bu ñu la rangee dangay ngay sonn sonn goo xam ne ni nga waroon jaamoo yàlla sax doo ko mën te nit dafa diis euh, lépp mu ngi am li am solo mooy li ñu yor wér na wala wérut mën nañu wala mënuñ ñun ay doomi gor lañ suñ demee ba jàkkaarloog askan yi doo wax ñoom rek c'est parce que am na lu ñu yàlla may as tuut ci li ñuy yëngatu su loolu amutoon rek rus nañ ko am nañ gàcce suñuy mbokk duñ teg bët ñuy wax waaye euh, wallahi alazim yàlla mooy sama seede billahi wallahi wa taalahi nit jëflante naa feeg nit mu nekk Saint-Louis mu yoral ma vingt mille problème télé la amoon mu woo ma benn bés nee ma sëriñ bi xàmmee ma man la diw ma ne ko waaw mu ne ma leng ma defaloon sant naa ci yàlla desaloon naa la vingt mille moom laa la bëgg a yónnee benn douanier ñëw na fii wallahi lazim ma wax ak moom li may wax ak moom ba pare cinquante mille laa ko fayee ko bi mu demee ñëw deux cent cinquante mille la ma may ndax li ñu waxante woon da cee teg bëtam ak leneen ak ñeneen ak ñeneen kon loolu sant yàlla la du lu ñu tiitaru sant yàlla la. sama sëriñ dafa wax ne xamul jàmbaar ku yàlla dimbali la xam loolu ndimbal bi yàlla rek la ñuy ñaan yàlla yàlla dolli ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi ba ñu mën a jëriñ jaami yàlla yi ba nga xam ne jaami yàlla yi li ñuy yaakaar ci ñun yàlla dana ko dëggal ci seen njort yi buñ ñëwee yàlla dëggal ko ba seen yaakaar bu mu tas ndax damay faral di wax ne nit bu ñëwee di la ñaanloo du xaalisam bi muy perte waaye yaakaaram bi tas loolu moo metti kon nag yàlla yàlla lañ yàlla sutural bu bu kenn yaakaaram tasee ci ñun. yan bi diis na waaye yen nañ ko yàlla yàlla moom dara diisut ci moom yan bi diis na ndax xam nga ñaan yàlla dafa yéeme du xaalis bi gis nga sama sëriñ dafa ma waxoon ne Thiello ma ne ko mu ne ma na nga fexe ba bu kenn waxoon wax ne doyatoo ma musoo maa doy loolu daqariwut li métti mooy ku lu ne doyatoo ma xam nga fii Sénégal ni ñu gisee sëriñ la dañ lay respecté am fu ñu la teg nawloo la lu baax lu ne ñu ne jox leen sëriñ bi kon nag sëriñ bi war na góorgóorlu mérité ko nu mu koy mérité mooy bu ñëpp di nelaw fekk moom mu ngi ci deram tey kursam di jaamu yàlla lépp loo xam ne dañ koo tere ci lislaam waxuma ne yow ne ñeneen ñi mais yow moom bu la ci kenn fekk loolu image yu la sëriñ noonu la war a doxee te cër bi la nit ñi jox war nga koo mérito ni ñu koy mérito nag mooy nangoo jaamu yàlla nangoo sonn ci gëstu ba nga xam ne da nga mën a jëriñ jaamu yàlla. ci jaamu yàlla boobu noonu yéen dégg naa guddi gi du ngeen nelaw. guddi gi ngeen di def seen liggéey maanaam. ah dañuy nelaw de xanaa peut-être duñ dañ dul nelaw nit ñi nelawee man moom du may nelaw guddi loolu yàgg na ci man man depuis du sax affaire sëriñ mais depuis ma nekk xale ba léegi nelaw dafa amul ci man rek euh, du may du nekkuma kuy nelaw te it lii métier bii de xam nga beneen métier waaye métier bii moom ku ci bëgg jëriñu nelaw guddi moom doo ko def. xaw ma nag beneen métier. secret ci guddi gi la nekk secret ci guddi gi la nekk. ndax yàlla sax wax na ko ci alquran mu ne xaaj leen guddi gi ñetti ñetteel bi ngeen jóg di ci naawaafil di ma ci tudd di ma ci bàq man yàlla seen borom subhaanahu wa kon nag secret yi te mu ne képp ku ko def dinaa la xamal lu ma xamalul ñeneen kon nag secret yi ci ci la nekk waaw secret yi ci guddi la nekk guddi lu yéeme la guddi lu yéeme la kon nag ah yow xam naa ne ko mën laaj nga waaye guddi moom. même artistes yi sax du ñu nelaw guddi du ma ne ci nekkuñ ci caaxaan sax ah yàlla rek a xam. secret guddi gi la. secret guddi la waaw méditation yi ci ngay gën a mën a méditer ci ngay gën a mën a bind ay poème ak yooyu bu dee ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ñuy liggéey ci turu yàlla guddi la ñuy gën a mën a euh, concentré wu kon nag guddi moom man duma xëy nelaw waaw. ana lan nga ñu war a mën a tey defaral démonstration te. waaw maanaam ma ne secret bii may wone képp koo xamante ni def nga ko ku la liggéey dafay dee. loolu nax lislaam nangu na ko. ah kay lislaam laa dara darara wala diraara bul lor kenn waaye bul nangu ñu lor la. mais lor boobu est-ce que du day am degré tamit. déedéet ku la liggéey kay mooy dafa dafa bëggoon nga torox ku bëgg nga torox sama yaay waxoon na ma ne ku la yéene nga dee kooku sa soppe la. te du doo yow ku la yéene nga torox kooku mooy sa noon uh-huh. te kuy dem di la liggéey pour nga yàqule. nga dem ba doo amati loo jox sa njaboot kooku sa noonu la. dëgg la sa sa noonu la waaye est que du liggéey bi tamit da am da koy dindi rek moo gën nga koy rek lii de moom ku ko sangoo moom ku la liggéey dafay dee. Ah. ku la gis nag yéene lu bon gis la rek di mer. dafay torox ba ba ilal ëbët moom day dellu gannaaw rek ba yombal yu baa suuna. loolu day mel ni tamit genre liggéey la rek bu ci yow. waaw mais liggéey la boo xamante ne yow daloo ci kaw kenn waaye am nga sañ-sañ nag xam nga tey boo demee ci dëkk yi am doole yi ñu ngi wut xaw ma arme nucléaire lañ koy xaw ma mm-hmm. bu bu ëllëgee bu ko dal seen kaw ñu dal sa kaw. soo gisee état di fay armée di fay ay junne yu bëri armée ex bës bu ne geer dafa am waaye dafay prévenir boppam ba nga xamante ni boo liggéey ku dal ci kaw mu mun a aar boppam. waaw Thierno Racine liggéey bi bu ko liggéeyee na xelam dina dal bu tëddee guddi est-ce que dina nelaw. kan pour man. waaw déedéet aw ma ci benn problème ndax képp ku jóg pour liggéey la kooku moom moo tooñ boppam moom moo tooñ boppam ndax nit da nga koy yéene jàmm rek soo ko yéenee jàmm nga am jàmm. sama sëriñ dafa doon wax ne ku yéene ñëpp jàmm ñëpp du ñu am jàmm waaye yow mi leen yéene jàmm di nga am jàmm waaye boo yéene nit ñi ay nag ñëpp du ñu am ay waaye yow mi leen yéene ay moom ci ay ngay dëkk genre yi nag moo tax ñuy wax moo tax gis nit bañ ko rek wóorul waaw kii nii lañ koy defee juróom-ñeent xal ngay def ci saafara bi fay ko ci nga fay ko ci saafara bu mot juróom-ñeent su motee juróom-ñeent nag nga def ci juróom-ñeent xeer juróom-ñeenti xal ak juróom-ñeenti xeer. juróom-ñeenti xeer waaw boo ci defee juróom-ñeenti xeer. boo ci defee juróom xeer. Mhm. nga taxaw ci kaw xeer jublu pénku nga sangoo ko benn yoon. soo ko sangoo benn yoon lépp lu nekkoon ci sa yaram lu mel ni njabar dafay dëñ te képp koo xam dafay jóg pour liggéey te bakkanam dana. day ànd ak sunguf lee. lay àndal secret alxuraan la dégg nga. daa lu ñuy bind boole ko ci nga taxaw ci kaw xeer def ci juróom-ñeenti xeer jublu penku nga sangoo képp koo xam dafa jóg pour liggéey la wala njabar la dana dana dee képp koo xam dafa lay gis rek bañ la donte deful la dara di la bañ ci xolam dafay xalaku ba keroog muy dee du am ndam mukk sa kanam waaw tey bépp njabar bu mu fekk ci sa yaram dana ko dindi waaw lii ab taalu suxuru la taxsin la lépp la waaw secret bu ci kaw ci kaw lii boo ko dindee baa di nga aar nit ko. Hmm? di nga ko aar. dégguma. ma ni ndax di nga ko aar boo jëlee juróom-ñeenti xal yi ak juróom-ñeenti xeer. Hmm. bu ko sangoowee taxaw penku ba pare. Hmm. ndax yow après di nga ko aar balaa ñuy dal ci kawam di ko def comme lii. kon yow maanaam ki kay ki kay sangoo laa wax ma ne ku ko liggéey dafay dee loolu kay doy na aar loo xam ne boo ko sangoo ku la liggéey dee. waa dëkk bi duñ jeex ndax ñi liggéeyante bari nañ. ah kooku kii li de ku ko def moom ku la liggéey moom dafay dee moom dana tawat tawat boo xam ne tawat boobu moo koy yóbbu yomal xiyam loolu moom kenn mënu ci dara lu yàlla def la secret bu wér la boo xamante ni lu yéeme la ñaare sax ku ko sangoo boo tëddee da nga gént say noonu da ngay gis tey noonu mu leer nañ nga xam ne kii diw mi sama sama sama noonu la. sëñ Thierno maanaam liggéey bi ngay liggéey nii. nit kooku tey jii bu ko sangoowee ba kooku noonu war a dee est-ce que am na ci ay ay ay ay ay ay solution ya nga xam ni war nga mën a def loolu pour mu bañ a dee wala dara. bu ñëwee ci ki mu liggéey ba tuubal ko ba wax li mu ko def su ñëwee rek ñu dindi ko. xanaa da koy liggéey pour mu ñëw ci moom raa pour mu ñëw ci moom raamal ko ne ko maa la liggéey. waaw ma ne bu defee loolu. Ah. bu defee loolu ne man kat dafa am lu ma la defoon damaa bëgg nga jéggal ma tuub tuub damaa ñëw pour tuubal si la. su ñëwee ñu dindi ko ba nga xam ne moom du dee waaye su boobaa àdduna dana ko yar ba dootu ko defati keneen waaw xam nga nit ñu bon ñi weer leen dafay baax jamono dafa toll foo xam ne nit ñu bon ñi di leen weer dafa baax bañ leen a bàyyi ak seen sago ñuy tooj àdduna di def lu leen neex sa àllu àdduna jaru ko. waaw jéggale tam da ciy baax. waaw jéggale ku ñëw jéggalu la moom mun nga koo jéggal soo ko jéggalee dara yàlla dana ko jéggal yàlla moom ku maandu la soo jéggalee rek yàlla jéggale soo jéggalewul nag yàlla moom yar bi moom day dal Mm. yat bi moom dina dal ci biir taraf <laughs> léegi sëñ Thierno Racine nan lay tàggatoo borom xam suuna xaaf. maa ngi nuyu waa Télé di nuyu suñu caméraman bi ak yow mi nga xam ne yaa nekkoon ci micro bi di laaj laaj yi am solo yi. Sofia maa ngi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di ñaan yàlla li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na ko yàlla def di. ñaanal seen télé bu bees bii di télé Sénégal nga xam ne Sénégal ñëpp a ngi ciy gis seen bopp yàlla yëkkati ko ba mu gën a kawe ba mu nekk loo xamante ni adduna yëpp danañ ci gis seen bopp yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def barke Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu léegi bu ñu bëggee jot buñ bu ñu bëggee jot euh, Thierno Racine ba numéro lañ koy jotee. waaw 77 649 06 60 loolu mooy sama numéro. 649 06 60 wala 037 77 037 63 33 wala 472 01 01 boobu 76 ngay def 472 01 01. maa ngi dëkk une Parcelles Assainies unité 13 côté Juma Mouride bi booru hôpital ma Abdou Aziz Dabakh bi radiyallahu taala anhu côté boobu laa de. sunu mbokk yi nekk euh, Europe nag. waa ñu nekk Europe mun nañ moo woo ci 00221. Euh,

waaw amoon nañ mbégte tey ñëw fii Parcelles Assainies unité 13 seet si Thierno Racine borom xam suuna xaaf maanaam benn marabu ba nga xam ne tradipraticien la day faj ci wàllum wér-gi-yaram wàllum ubbeeku lépp la nga xam ne maanaam day nekk ci nit moom da koy faj defal nañu démonstration bu doy waar donc du ñu def lu dul kar ko ci Télé Sénégal à bientôt au wax ak moom. télé sénégal com e ngi nii get leen kon attendez man Viviane maa ngi seetaan télé sénégal point com. télé com xibaar yu wóor te leer kenn du